lii ab soññ la rekk ci mbokku taalibe yi di jëfi taalibe di yëfi murit ndax ñun ay murit lañu ay taalibe Sëriñ Tuuba lañu bu dul dara sax di àddiye joo xam ni ku la gën a jige sëriñ bi yoral nga ko addiye ñu war ko ko jox xamnañ ni buñ ko lajul won sax ngeen joxe ko ndax teranga ju melni nii nga xam ni ci dekk bi ñu ne mu tuddu ndakaaru nga xamni ni yàgg naa ndax tuba bi ñong ko sanc 1400 ak lu top legi mu mën am junni at te bi ñu fi ñëw di ko tudde noonu booba ab dëkk la woon ay nit dëkk fi ñu dem ba suñu jàmbaar ji feeñ jamono def fi lim fi def woote lim fi def woote lim fi woote am lu dox digganteem ak dëkk bii muy Ndakaaru nga xam ni bopom, ko jamar lo gamu jambar lo, jamar ak on lislaam am fii ñaari guddi yoo xam ni yi nga xam ni ko khame gis ko ak biñ ko noppee gis ba ay guddi yu bari la waaye ñaari guddi yi muy fanaan fii ci ndakaaru ba dem ci liggéeyam bu mag nga xam ni moo am da koy fàttaliku bu ñu ko defalee barab bu mel nii fii mu mel nii war na ñoo xam ne la mu doon wut ak li ko bëgg ak di ko def yàlla nangu na ko ndax barab bi kat ndakaaru gi ñoo ngi fi bëgg ami fan ndax fi lañu feeñe ba am fi ay sët ak sëtaat waaye lu mel nii musu fi am amul ci genn jàkka jooy dem ñuy naafi la mbooloo mu mel nii am fa nga am lu jege ci ñaari junni nit te ba ñu tàmbalee weer wi feeñ ba tey jii nii la naafila gi mel loolu nag nañ ko gërëme suñu jàmbar jooju muy Sëriñ Tuuba te ñu xam ni lu ñu def lu ñu jéem lu ñu ni dañ koy defal sëriñ bi nañu xam ni defuñu dara ndaxte lii de mënuñu ko woon ñàkk am munu fi woon a ñàkk bañ a amit sëriñ bi ci mbaaxam mu liggéey liggéey bu rëy bi mu liggéey ba tey jii baaxe ñu barab bu mel nii nga xam ni fu nekk la nit di jóge ci réew mi ak ci dëkk bi di ñëw fii kon waruñu soññ kenn ndaxte barab bii day sëriñ bi rekk a ko am ñun rekk a ko am ko am nag lu kenn amut dangay góor góorgóorlu bay jëf lu kenn jëful te ku ne mën na dara ku ne am na loo man ndax ku ne yaa ngi am sa soxla te boo ciy laaje ndimbalit di nga ci def loo xam ni ci sa soxla su bopp kenn du la ci man bu yàlla soxlaa nag ndax sëriñ bi soxlaam moy soxla suñu borom dañoo wara jaayante bu mat seuk ta xam lu way def lu ne defaloo ko kenn sa bop nga ko defal yàlla waxul wax jëf la wax man amila la wax saalihan fali nafsi jëf rek la wax ku jëf sa bop ku jëful sa bop cheikh mohammed al muntaha yàlla fi yàlla yagal ko wéral ko mënuñu ko fay waaye nag li ñu man di ko féetewoo mooy am xol bu set bu laab di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko wéral ko lii mu bëgg ci liggéeyu sëriñ bi mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd kook moom moo rakkam yëpp ak njabootu sëriñ tuubaa gépp ak fépp fu ñu manti nekk ndaxte lii de ci dëkk bii yombul am na mag ñu baax ñoo xam ni li ñu daj ci dëkk bii doon taalibe sëriñ Touba doon ay mag yoo xam ne daanaka dóor rek def nañ leen ko ci dëkk bii ndax bëgg a yëkkati seen diine mooy ci bëgg tamit jëfe seenug taalibe seen digganteek sëriñ bi lu ne daj nañ ko ci duy wax nag dama ko fekke sama waajur ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu ñu demee ba lii lépp xew nañ ko gërëmee ki nga xam ne bu dul woon moom lii lépp du xew te duñ ko am muy sëriñ bi kon ku ñu ci woo ku ne nañu xam ni dañuy soññ ci li ñu war ku la soññ nag ci li la war bu ko jéppi mukk na ko sant te gërëm ko ndaxte fàttali la loo war a def ku la ko defal ku ne bëggal na la te néeg bi kat sëriñ bi lu fi waay def kanam la jëm lu fi waay deful it kanam la jëm bu kenn xalaat ni boo fi jógee wala defoo ci du dem fi mu jëm mukk ci àddina du man du sama morom du kenn sëriñ tuubaa la yàlla dul tàngam lu daraam sëriñ Touba daraam du dellu ginnaaw kanam la jëm ku bëgg dox ku bëgg jëm na nga fexe ba dugal sa dara ci biir ndax fu muy dem mu yóbbaale la fa de sëriñ bi daraam du dellu ginnaaw boo gisee ñu taxaw fii di leen soññ ñoo ngi soññ ci courant bi ñoo ngi sonn ci entretien yi ñoo ngi soññ bëggal leen jàmm rek ku joxe dina faju ku joxewut dina faju comme nag ñun yéene nañu ñépp jàmm moo tax ñuy soññ rek waaye lii fi xew xajul ci benn taalibe waaye nag lu baax boo xamee ni lu baax du doy da nga koy yéene ñépp ndaxte fii dey dañ fiy jóge bu ñu fi jógee dañuy dem ci këru dëgg ga te këru dëgg ga kat suñu julli yeeg suñu woor yeeg suñu suñu suñu suñu suñu asanaat yu baax yi ñu def yëpp bu ko yàlla peesee ak suñu jëfi doomu aadama boo sàgganul ñu am lu ñu naqari lañ fa yaakaar du dara lu dul Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba rek lañ fa yaakaar ñu woola ci Serigne Touba ngay tangamlu wala ñu woola ci Serigne Touba ngay ñi ciipatu wala ñu woola ci Serigne Touba ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay yeex wala ngay diib defe ni kenn nga ko def defoo ko kenn sa bopp nga ko def nde sëriñ bi moom du fayantu waaye dina am loo xam ne am ko ba pare sëgg rus am ko ba pare siggi moo ko gën te sëriñ bi kat yoon wii lu mu doon mooy jëf loolu la wax de bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati loola waay wax lu dul loolu mu ngi lay nax kon ñoo ngi gërëm ñëpp di jiital ci ngërëm bi imaam ratib bi nga xam ni moo imamu barab bi ak seen xaadim ak naayim yi topp ci moom yëpp imam yi di leen gërëm ci turu sëriñ bi ndax bu ñu sëriñ bi bàyyee fii fa barab bi ak ndakaaru ak li ko wër ñu ànd ak taalibe yi li mu yaakaaroon ci ñun mooy ñu taxawu taalibe yi tax tabax taxawu njabootuk sëriñ Touba gi taxawu barabu sëriñ Touba yi nii yoon wii diine ji nii lislaam di doxe ci ndakaaru gi musu doxe waaye du dara lu dul ndimbalul sëriñ Touba yéen ñëpp ngeen jàpp ci bi ñu wootee liggéey bi kenn noppalootu lu dul bi fi sëñ bi ñëwee di ko ubbi barab bi ubbi ñu jàpp ni ci julli ak sëlmal lay yem yu bari yu am solo di fi di fi xew loo xam ni kuñ ko waxut doo ko xam ndax bi barab bi tàmbaleek léegi li fi jóge ci beneen diine dugg ci diiney lislaam mu nekk ci registre ñu bind ko fii ëpp na junni nit yoo xam ni ci jeneen diine lañu nekkoon ñu xemmeem barab bi xemmeem lii fiy xew ak nii ñuy taxawale diine ñu jóge ci seen beneen diine ñëw dugg ci diine am na ci ñoo xam ne fii mu ne sàmm nañu tegu nañu ci yoon ba boo leen xoolee da ngay defe ni ci li ñu juddoo ci la ñu yaroo ci mokk ci defaru ak wut xam-xam ba am xam-xam liñ fi takk ci sëy ci dugal ñuy sëy fii kenn xamul nu mu toll li fi nit xàmmee diineem ndaxte def nañ fi majalis ci niveau yu ne ñuy jàngale xam-xam guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg weeru koor ñëw ngeen gis kuréelu xasida yi nga xam ni ñoo ngi ci fulk bi ñoo ngi ci daayira bu nekk ci senegal mu ñu ngi buuxante ñu invité leen pour ñu ñëw fii ci waa Jeysun bokk ci njàngum xasida mi kaamir bii nga xam ne bi ñu tàmbalee laa leen ñaan ni leen na ngeen ma dimbali bala xew njaareem xew Touba nga xam ne bës bu ne dinañ wàccee sëriñ bi juróomi kaamil mu méngoo juróomi waxtu juróom ba tey ji wàcce nañ ko bés bu ne wàcce juróomi kaamil bu ne wàcce juróomi kaamil bu sëriñ bi diglee jàng xasida wala mu jàng alxuraan dinañ wàcce ay téeméeri téeméeri kaamil boo xoolee loola nag ak ñi nga xam ni dañoo jotewu ci barab bi te nekk ci gox ak goxaat yi ba barab bi ubbee ak léegi nangami junni junni kaamir jàng nañ ko fii ci barab bi ay junni junni kaamir li mu xaside yi kenn xamul lu mu toll ñu dugg ci weeru koor wi ñu gis téere Serigne Touba yi nga xam ni sëñ Cheikh Gueye sëñ isaa Gueye ñoo ngi toog fii di dimbali nit ñi ci xam-xam ak ci njàngale téere sëriñ bi loolu du lu ndaw lu reey reey la ñu invité fi ay ay xam-xam professeur de médecine ay professeur d'économie ay borom xam-xam yu wër ñu ñëw durant le koor après midi bu samedi ñu ñëw def fi conférence Nous ubé ñetti koor yoyu ba koy def ci biir koor di ñu noddal nga ne xam na commissaire au pèlerinage dafa ne xanaa dangeen ngeen am naar bu leen di noddal ñu ni ko déedéet kii de gune ga la goo xam ni fii la fii la jànge musul a génn réew mi ci école Cheikh Mouhamadul Mourtada la jànge ay rango ñam dafa génn nga xam ni imam Xaadim Lo moo initié ñu woo jàkka yi wër Ndakaar yi wër fii jumaa ji yëpp invité leen pour ñu mën a defar defaraat seenu nodd fanweeri noddkat ak juróom ñëw nañu fii def fi séminaire ba ñu ay diplôme keroog defe naa iftaar bi la wala bi euh, euh, avant iftaar bi ñaata imam ñoo fi ñëw dimbali ma Isa ah ñaar fukki imaam ak nangam te du imaam yoo xam ni ay imam ay boroomi xam-xam ñëw nañu fii. yendu ak sëriñ xaadim loo ci ñuy waxtaan ci mbiru imaama ak jullee ci biir jàkka yi te loolu lépp fii la soso ci biir masalikul jinaan sànq la ma benn nit woo ni ma iftaar bii ñuy def de te kat bi ma ko laataa wax Cheikh Mouhamadul Muntaqa moo ma ko wax dafa ni ma dafa bokk ci liggéey bi ak wane liggéeyub Serigne Touba ndax ay ambassadeur ay ministre ren ay premier mi ñëw fii ñëw defuñu ko ngir noos defuñu ko pour lekk dañ ko def rek pour wane Serigne Touba li mu def ci lislaam ak ni nga xamee ni bii la mu ni lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatuhu xarra wa inni ahmadu loolu rek la ñu bëgg dundal te loolu mat na sëkk ñëpp xam nañ ko kon bon ñoo ngi gërëm ñëpp di ko teg ci loxo Cheikh Mahmoudul Bachir ak ñi mu àndal ñëpp di gërëm sëñ abo mii ak i kilifaam waaye lii ko war bu ko deful woon Cheikh Mamadou def ko bu ko deful xaadim sëñ def ko wala sëñ Issa Gueye bi ñu tàmbalee barab bi booba mbaar la fëli la ñu def mbaar maa wax imaam Cheikh mii ni ko wutal ñu imaam mu ñuy naafilaal mu indi sëñ Gédé Gueye mii ak sëñ Cheikhouna Lo booba mbaar lañu def fee ñuy naafila kaamir bi di ko awante ñoom ñaar bi mu desee fukki fan ñoo ngi dem xiyaa ñoo ngi def xiyaamu li tey jii la ñuy tëj kaamir boobu ñoom ñaar ñi nga xam ne ñii doomi barab bi lañu produit barab bi lañu kon barab bi la barkeel na yàlla barke bi jëm kanam ñii nga xam ni ñoo fi nekk nekk fi ñuy ay taalibe Sëriñ tubaa muy ñëpp rek waa diwaan bi boo ne diwaan bi ñëpp ngi ci biir daayira yaa ngi ci biir xale yaa ngi ci biir sécurité baa ngi ci biir soxna yu baax yaa ngi ci nga xam ni kenn du leen gis ndaxte jigéen baaxoowul nekk ci ay sappay góor ñoo nga fële wala ñoo nga fële kenn mënu leen ci liggéey yi waaye defaluñ ko kenn la ma waxaloon la ma wax rek lu waay def sa bopp nga ko defal kenn deful kenn dara lu waay def sa bopp nga ko def ma bëgg ñu gën a góorgóorlu gën a ngooy ci lii ñu am nga xam ni amul fenn ñun rekk a ko am ki tax ñu am ko muy ko tedd ki di xaadimu rasul nañ ci ngoy rek te kat defaluñ ko dara lu waay jàpp ni moom nga ko defal dafa fekk mu defal la ba pare la mu la defal nga di ci coppati di ko defal waaye kenn defalu ko defar moo defar lépp kon ñoo ngi leen di soñ cey ñaan suñu sëriñ su baax la ko tàmbalee ci sëriñ saaliw ma nga xam ni xalaat bii ca moom la tukkee bi mu fi jógee jaar ci doomam yu baax yi Cheikh Mouhamad Lamine Baara di jàmbaar ñëw fii gis pàkk bi jox ma ci ordre ni ma nañu tàmbalee teg fii première pierre bi dem àjjana rakkam ju baax ji Cheikh Sidil Makhtar sëñ Cheikh Matiley di jàmbaar joo xam ni kenn du ko fàtte mukk ci àddina taxawul liggey bi taxawul liggey bi taxawul liggey bi jël lépp tek ko ci loxoy rakam jii fi ne di doon jeewriñam ba tey muy doon Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ak Cheikh Mouhamadul bashir di porte parole bi yal na yàlla fay ñun taalibe yi de amuñu sen pay waye am nañu ñaan ndax taalibe Serigne Touba lañu te gëm nañ ko bu wér bëgg nañ ko bu wér bo xamni bi amul amul lam lamé ñun taalibe Serigne Touba yi. ñoo ngi ko di dagaan Serigne Touba Serigne Touba yàggal leen fi wéral leen ñun yàgg nekk ci suñu kanam duñu ay taalibe yu bëgg a seex duñu ay taalibe yu bëgg a jéb yu bëgg yu bëgg a jiitu taalibe la ñu bëgg a doon rek juñu nungul ab liggéeyam ci Serigne Touba kon maa ngi leen di woo ci loolu ngal la nañu xam ni lii yàlla daf ñoo beral loxo ñun taalibe Serigne Touba yi lii bariwul de fii rek la am kon lu bu nit amé lu kenn amul day lu ba pare mu jaral ko ko la yombal lu bax mi ngi lay nax lu bax yombul lu bax dafa metti kon serigne bi ci sa tour ak ñi nga andal ñepp ak ñi nga xamni wa waa kër sëriñ Touba ñew di ñu wéttali doomu Cheikh mohammed Lamine Barangi serigne sa Abdou Samad serigne Mouhamadou Lamine mi ngi ni bañu tambalé tàmbalee naa fi la man sax ma xawa waaye booba ba léegi ñoom ñoo ngi fi di ñu wettali waaye nag loolu moo leen war li wolof di wax njéem ñi xaw ma lan daanu ca teen ba masamaak ña ca ña ca pind ba kon Cheikh Mouhamad Lamine jërëjëf na ñu santal sëriñ bi ñëw gi mu fi ñëw rëy na ci ñun lool ñoo ngi sant nag bu baax Cheikh Abou Baraka naafila bii mu doon naafila def na ko ci clé xam naa ni sëñ xumba mii ku ci bëgg a jot ku nekk dina la wax na ngay def ba am ko clé def nañ ko ci clé USB enregistré nañ ko euh, barab bi nag na mu daan def rek am na ay addiye yoo xam ni ñoo ngi koy nga xam naa ni suba dinañ naafi la bu weer wi feeñul ginnaaw suba it dinañu naafi la suñu addiye dinañ ko dajale nañ ko boo léegi lii nga xam ni taalibe fi dajale joxe ko muy addiye Serigne Touba dinañ ko teg ci loxo imam bu neexee yàlla bu subaa muy suñu addiyee ñu jox ko diggante bi it nag képp koo xam ni kii am nga addiyee joo bëgg Serigne Touba dina ko nungu ñu ñaan ñu fekkee ñun ñëpp ba déwén te tal ko te man ko boo ñëwul woon nit na nga ñëw boo ñëwee nit nanga nga dab dabaatal ba ñu xam ni waa Masaalikul Jinaan kat ku leen lebal teranga ñu fay leen ko te lii mënu ko weesu ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu